yéen ñëpp muy camp pouvoir muy camp opposition yéen ñi bokk politique bi ngeen ne da ngeen bëgg fauteuil bi yéen on doit vous imputer la responsabilité de la situation que vit le Sénégal donc yow. oui j'attends la question. dañ leen ko war a imputer waaw wala déet dañ leen ci war a boole fu ñu tuddee Macky Sall dañ leen ciy tudd. alors Maïmouna vous avez l'heure est grave. et je voudrais très honnêtement que tout ce qui est wax waxi caaxaani les caaxaanari politiciennes la ñu teg ko de ko côté. mais caaxaanari moo ñu indi fii ñu wax ci réew mi. justement xam nga may mun a réew mi kenn lañ fal dama lay delloo ci lu ñu ñuy nettali ci taarix ñu ne sëñ Abdoul Ahad Mbacké mu baax ma. Euh, ca Touba dafa am benn moment mu wuti ay gendarme ak i policiers ñu ñëw marché Ocass dugal fa ay xaj dégg naa mag yi Touba yi def délégation dem seeti ko ne ko sëñ bi de euh, sa wuy jur bu baax ba musul nangu ay xaj di dugg ci dëkk bi mu tontu leen ne sama way jur bu baax bi ba mu fi nekkee ay xaj nekk ñu fi woon waaw kon léegi tey bu fi ay xaj nekkee bay def jëfi xaj dañuy indi seen i moroomi xaj ngir ñu génne seen i jëf c'est ça la réalité et fii tey comportement ba ñooñu amoon tey ñun ñii ci classe politique bi cette nouvelle génération de politique bokkuñu ni ñuy xalaate bokkuñu ni ñuy gisee bokkuñu ni ñuy jëfe man Bougane yaa ngi koy wax léegi téye nañ ma ay yoon yoon ci élection te teewul tey laa gën a takku di xeex yenn saay sax nit ñi di laaj looy xeex parce que yow amoo candidat ci législative yaa ngi xeex man leen man ak yéen mënuñu bokk logiciel ñu bokk nit ñi xalaate man Sénégal moo ma ñor y a le Sénégal ki m'intéresse et ce combat là c'est ce que nous en train de faire Maïmouna ce qui est en train de se passer c'est le comportement des hommes du système Macky Sall c'est un homme du passé la preuve il utilise lépp lu amoon jamonoy Senghor jamonoy Abdou Diouf moom lay delloosiwaat teg ko ci taabal ji les même pratique ba ci compte k bi fi amoon ñu defoon ko pour satisfaire une clientèle politique dafa ñëw indi DER pour satisfaire une clientèle politique taf yëngal situation yooyu rek lañ nekk léegi tey ces jeunes qui sont sortis dans la rue mun ces jeunes ont soif de démocratie ces jeunes ont perdu tout espoir pour mun a doon dara wala tekki dara ci réew mi Macky Sall yamul rek ci réduire l'opposition à sa plus simple expression dafa réduire la démocratie à zéro jël la justice manipuler ko jël justice dëgg tànkam teg ko ci wala mu jël concam teg ko ci c'est pourquoi ce qui s'est passé à l'université est déplorable mais quand j'ai discuté avec un jeune étudiant en droit lu ma wax mu ne ma mais bu fekkee ne faculté de droit li ñuy jàngal amul njariñ da ngay jàng ba pare dem ay politiciens di la manipuler di la defloo li nga li ñu bëgg ñoom ci droit c'est catastrophique lu nit mun a dégg la. donte mais mais mais Bougane rassurez-moi vous n'êtes pas en train de légitimer ce qui s'est passé à l'université may may yeggale euh, waane weesuwul nettali sa gént. nettali sa gént non ma ne vous n'êtes pas en train de ah, ah. légitimer ce qui s'est passé à ah, ma bokk ci ñuy nangu loolu dama ne lim ma expliqué laa lay wax am na situation yoo xam ne kenn mënu ko mun ci d'accord c'est comme ni nga may wax oui am na ñu génn am na ñu na may mun a. démocratie mooy garantir liberté yépp sécurité bi njëkk mooy démocratie tey bu ñu génnee ci mbedd mi mais ku nekk ak li ko tax a jóg am na koo xam ne day défendre démocratie en général am na koo xam ne leader am moo ko tax a jóg muy Ousmane Sonko am na koo xam ne li ko tax a jóg mooy am lu mu def ci biiram am na keneen koo xam ne jàpp na ne moom dafa war a jël revanche ci société bi parce que mosul dugg au champ amul possibilité dugg au te loolu dara tegu ko ko lu may njiit yu bon yi nekk ci réew mi il faut du tout pour faire un monde waxuñu ne loolu normal na mais situation la bu nit mun a expliquer ces jeunes qui son sorti dans la rue parce que dañu jàpp ne seen avenir dafa hypothéqué wu dañu leen diggoon yaakaar tey ñu teg leen ci yoonu yàqute waxuma ne réew mi dañ ko war a yàq man ku yàq réew mi buggaan doo mais xam nga jeune du ma la ci jàppale